lëndëm dox ci lëndëm waral na gëlëm lu ko moy mu dox ci lëndëm dox ci waral na gëlëm ku ci fonkulub àndam xaaraan ka yor àndam Sénégal Sénégal Sénégal a reefen melo nooni mu reefete melo nooni la ame solo nooni mu reefete melo nooni la ame solo nan fonk njàng mi ak mbay mi gi bañ a sàggane bokk gi te nuy teral sunu gan di bañ di muñ bu nu daw bu nu tiit bu nu dellu ginnaaw lu dul ci lu ko jar ndeysaan daani daani daani daani shawqun minka masdaruhu unqu فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق دعاني شوق منك مصدره بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا خذني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi bàyyi xel Sud FM seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi ñu sante eh, borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñoo ngi amaan mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaay bii di xamtu xamtu ñu di ko am diiru weeru koor gi li ko tàmbulee altine ba ajjuma bu 16h jotee jàpp 17h ngeen ci ànd ak seen mbokk Mbàkke Sylla ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa taala delluwaat di julli di sëlmal ci kim yónni ci ñun sayidina wa nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi amaan nañ mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaay jotaay bii di xamtu leen bu baax a baax jaajëfal Oustaz Alioune Sall mi ñu fi wuutu tam àndoon ak ñun léegi ci tafsiru Quraanul Karim bi ñaan borom bi defal ñu dégg ak topp suratu xawf bi am na solo lool jaajëfal bu baax a baax imaam alxaaji Oustaz Alioune Mbaye borom jaar-jaari yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ci xasootu badrin boobu nga xamante ne ci la daaneele ak ñun léegi mbokk yi jotaay biñ ciy toftal seen bos la te mooy jotaayu xamtu di ñuy waxtaanee euh, alxuraanul karim waaye ci la ñuy waxtaanee lépp loo xamante ne ni soxal na leen di leen ko jéem a jege sil ba mu jege leen léeg-léeg ñu indi ko mu doon ay laaj yoo xamante ne dañ leen koy jagleel ubbi téléphone bi ngeen woote buñ àggee ci cottitel émission bi yëkkati ñi nga xamante ne ñoom la ñu jox suñu neexal jox leen ko waaye daara ji itam am ay jàmbaar yoo xam ne da leen a am ñoo xamante itam dañoo sonne daara lool ba noppi it war a ñëw ci plateau yi waxtaan ak waa daara ji ci ay thème léeg-léeg ñu jëli ci ñu ñun ak ñoom ak yéen ñu ànd séq aw waxtaan ñoo ngi amaan mbégte lool ci dellu si waat ci ak yéen nuyu leen bu baax a baax mboolem ñuy bàyyi xel xamtu ci biir réew mi yëpp nag Sénégal wërngal këpp ñi ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ñoo ñuy dégloo ci 98 point 5 ñoo ngi leen di wax asalaamaaleykum ñi ñuy dégloo ci Jurbel ak li ko wër sama dëkk ba ñoo ñuy dégloo ci 94 point 1 asalaamaaleykum ñi ñuy dégloo ci Kaolack ak li ko wër ñoo ñuy dégloo ci 94 point 6 asalaamaaleykum waa Matam ñi ngi ñuy déglu ci 90 98 point 4 asalaamaaleykum waa Kolda 95 point 4 ñoom itam waa Mbacke Bawal 91 point 2 waa Louga 93 point 2 asalaamaaleykum waa Saint-Louis moom Louga bokk fu ngeen ñuy jàppee waa Ndioum 93 point 6 lañ ñuy jàppee waa Mbour 106 point 2 lañ ñuy jàppee wala point 4 waa Thiès 102 point waa Bakel 97 point 5 waa Ziguinchor ñi ñuy déglu ci 95 point 6 jamono ji ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax waa Kédougou déggu ñoo ñuy déglu ci 97 point 9 asalaamaaleykum wërngalu Sénégal gépp ñoo ngi leen di nuyu ñuy bàyyi xel ci internet bi jamono jii ci 3w point sud fm seen rajo point com te nekk ci bitim réew te ne ci biir réew mi it di ñu dégloo ci fànn googu ñoo ngi leen di nuyu di leen bége bu baax a baax bége leen bu baax jaajëfal leen démb maa ngi dalaloon suñu mbokkum daara oustaz Mouhamadul Amin Dramé ñu jaaroon ci actualité bi waxtaan ci ndax tolluwaayu jamono léeg-léeg itam waa daara dañ ciy amee xalaat bu ñuy def plateau spécial yi nañ leen cee bañ a woo léeg-léeg nag plateau yi daara ji am itam waa daara ji ñëw joxe ci seen xalaat looloo taxoon ñu dalal ko démb ba ñu jeexal ñu dugg ak moom ci téere bi alxuraanul karim moom itam mu indi ci ñun waxtaan wu yaatoo yaatu woo xamante ne nii euh, ba nëga ni nit ñaa ngi may woo di ko rafetlu ak di ci jokkoo ak moom tey ji itam noon lañ ko fas yéenee defewaat jéglu baax a baax itam auditeurs yi euh, nga xamante ne ñooy xaar laaj yi ak tontu yi ci téléphone bi tey itam dañ leen a indil gan bu ëllëgee jàmm euh, ñu daal di ñëw nag ñaari gan xam ne ñoo fi jot jaar ak yi nga xam ne ñoom lañ jot a indi ñu ànd jéem koo tënk bu boobaa ci 98 point lay doon wala 88 628 98 98 lay doon ak ci 33 841 22 33 ñiy bàyyi xel ci Sud seen rajo yëpp ñoo ngi leen di nuyu te di leen bëgge bu baax a baax di leen ndokkeel ci ànd gi waxoon naa leen ko bërki démb tey ñoo ngi war a dalal suñu mbokkum daara abu euh, Aboubacar Traoré moom la ñu war a waxtaanal léegi euh, ginnaaw bi nga xamante ne 16 jot na ba teg fukki simili ak wala boog jot na ba teg juróom-benn simili rek. war a waxtaan ak moom dara du ci génn téere bi alxuraanul karim mooy téere bi nga xamante ne moom moon wàccee ci ñun waaye itam mu war a régler suñu dund démb al amin ne woon nañu ndax dañ ko war def téere barkeelu rek wala teg ko rek ci yéemu bari yu nekk ci biir yoo xam ne dañ ko war a waxtaane mooy tax ñu gën koo dégg loolu bokk na ci li tax ñu dalal fi suñ gan tey ni ñuy def nag daal di yàgg lu dul wëlbati suñu laabi fos janoo ak moom euh, muy Cheikh Aboubacar Cheikh Aboubacar salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu am nañ mbégte lool ci dalal la fii ci si FM seen rajo. wallaay fii la ëppee. ñu nit am nañ mbégte lool ci dajeeg suñu sëriñ muy sëriñ Cheikh Mbacke Sylla. jërëjëf macha allah. macha allah di la bége lool euh, di koo xamante ne ci daara ji la bokk. waaye bi ma lay dalal ci xamtu dafa am yu bari. yoo xam ne dafa daje sama bopp neex ma lool te bëgg nit ñu yëg ko. ndax dana leen encouragé. loolu bokk na ci li tax ma dalal la. Euh, laaj bu njëkk bi day ànd ak bàyyi la nga nuyoo auditeurs yi wax ma kan mooy Cheikh Aboubacar Traoré Eh, alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah alhamdulilah ñi ngi sant yàlla yàlla mi nga xamante ni bi moom moo ñu baaxee lii yépp wa ma bi min ni'matin fa min allah lépp loo leen am ci xéewal rek ci yàlla la bàyyeekoo donc ñuy julli ci ngën ci mbindeef yi nga xam ne mooy suñu buntu ñu ñëpp ci borom subhaanahu wa la di julli ak sëlmal ci moom comme niñ ko borom subhaanahu wa sante gannaaw loolu maa ngi tudd abu Aboubacrine Traoré euh, juddoo fi ci réew mi ci Rëbës waaye yaroo diggante Médina ak kolobaan mhm. foofu laa yaroo jàngee Alfala Colobane mhm. moom donc ci gàttal daal ki <laughs> mooy imaam Aboubacar waaw macha allah danaa ci am na ci <laughs> ci bari maa ciy ñëw ci samay laaj waaw incha allah euh, kon nekk nitu daara mën naa ko waxee noonu mhm. waaye nit kuy dund comme ni ñëpp di dundee di gëstu ci àdduna lu baree bari euh, Cheikh Aboubacar foo jàngi alquran alxuraan nag euh, jàngewu ma ko ci daara nag mhm. <laughs> waaw donte ko am ci école yi moom maay madaari si ñu jaar dañ fa jàngee alxuraan mhm. waaye bu dee jàng ko ba tari ko mokkal ko moom loolu ci ndimbal yàlla moom daal mhm. euh, effort personnel la. macha allah boo xam moom la def daal ba yàlla dimbali ñu. ci mbaaxam daal ñu daal di koy mokkal. est ce mm. point boobu ci laay njëkk a taxaw ñu mm-hmm. ubbee ko émission bi. Mm-hmm. ndax euh, day barab boo xam ne ay mag dañ koy déglu. Mm-hmm. léeg ma indi ab laaj nit ñëw ne ah man de ni ngeen def al alquran ji dama leen cee ñee. ni ngeen def nanga man xaw ma nu may def ba man alquran. Euh, sama invité tey bi. moo tëju ci néeg jàngal boppam al alquranul karim ba mokkal ko. wala macha allah noonu la demee. <laughs> maanaam ci ñaata at nga ko def. <laughs> ci un mois. un an six mois. waaw ci mu ko jàng mokkal ko mokkal ko bon loolu ci ban méthode nga ko doon jàngee bi nga tëjoo. waa méthode bu extraordinaire la rek. Mhm. mooy que dama bàyyi lépp. Mhm. Euh, consacré wu ci alquranul karim. su ma nee bàyyi lépp nag nekkul ne daanu def ay activité mhm. daan naa ko def mais daal daanu ma temps. te aussi sama biir activité yi dama si daan jàngale alquran. damay joxe exemple rek. su ma euh, programme jàng diggante vingt deux heures jëm trois heures du matin par exemple. Mhm. loolu programme bu fixe lay doon. Mhm. waaye bëccëg bi su ma doon dem par exemple di jóge kër ga jëm. kolobaan wala may jóge kër ga dem fenn di dox mhm. benn activité ci yoon bi damay jàng alquran même bu fekkee benn aaya la sax wattuur wattuur mun naa ko répéter lu toll ni 30 minutes par exemple mm, mm, mm. balaa egg di ko mokkal ah, léegi nag boo demee tamit nga toog banque wala nga toog benn endroit di xaar mm-hmm. nga jël benn aaya wala benn saar wala ay aaya wala yooyu nga koy répéter mm-hmm. donc yaa ngi xaar yàqoo temps yaa ngi xaar leneen mais tam si biir ñàkk temps bi yaa ngi ciy jàng alquranul karim méthode bu extraordinaire boobu daal allahu akbar noonu laa jànge alquranul karim ba ko allahu akbar ba mokkal ko après nga dem ñu déglu la euh, ma concours ay concours yi ma bokk ak ay xuffaas. ci jamono jooju ma jël première nag yàlla dimbali ma ci loolu tamit. maanaam tëju jàngal sa bopp ba <laughs> mokkal. dem ci mm. concours yi ñu jàng ci daara yi. Eh, bokk ci ñi raw foofa. waaw mais jamono yooyu nag eh, concours yi am léegi amul woon. Mm-hmm. boobu amul woon kii. am na boo xam ne sax eh, oustaz Taïb Socé. ak oustaz Assane Seck. Mm-hmm. ñoo ko doon def ci rajo bi. moo participé woon si. ba am ci ay prix parce que maa jëloon première boobu yàgg na ay 2001 la 2002 daal su ma juumulee. année yooyu la ah. mhm. lan moo la lan moo la xiiroon ci loolu maanaam lu la ci attiré. Mhm. nga ba nga yëg ne da ngaa war a mokkal alquran. Mhm. ndax ñu baree bari dañuy xaar léeg ñu leen yóbbu ca daara ja ñu gis nit ñi sawaruñ ci jàng yow nga doon ndaw ba pare. demoo jàngi waaye nga toog jàngal sa bopp ak effortu jàng ni méttee lan moo la motiver. waaw alhamdulilah damay ne yàlla moom moo def cofeelu alquran sama xol. alquran moom de nature dama ko bëgg. dama ko bëgg naturellement. man leen saa damay toog sax ma ne bëgg bi mu bëgg alxuraan lan moo ko def. parce que du ay acte mooy def yoo xamante ni moo tax cofeelu alxuraan dugg sama xol. Mhm. loolu mooy bu njëkk ñaareel bi moom mooy waajur yi tam yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jur dañoo bëggoon alxuraan dootul. Mhm. yàlla def na génn àddina. maanaam euh, ki ma jur dafa teel a génn àddina waaye ki ma yar moom daaw la génn àddina. bugguñu woon leneen lu dul diine mm. alquran surtout mm. alquran mm-hmm. loolu lañ bëggoon bu baax loolu mm-hmm. benn loolu tam bokkoon na si lu ñu motiver ñu gën a góorgóorlu ci alquran karim mm-hmm. daanaka tamit maanaam famille bi ñu ñu nekkaloon ñu si bari dugg nañ ay daara sax am na xale yoo xam ne si man maa leen yóbbu daara. Mm-hmm. mais seen jàng mujjewul àgg. Mm-hmm. léegi loolu yëpp bi ma ko xoolee ma daal famille bi foog mu am kenn koo xam ne. moom au moins moom dina téye alxuraan maanaam dina siggil kii famille bi. wala parents yi. nga xam ne ëllëg dinañu am lu leen neex ci famille bi. loolu benn beneen bi moom mooy amoon nañ tamit ay xale yu ñu bokkaloon euh, kala di jàng. Mm-hmm. ñi jóge Fass Touré ñi jóge benn Brak ñi jóge Kokki ñu bokkal ak ñoom di jàng mais suñu daan nekk classe bi di jàng. ku mel ni oustaz Lamine Mouhamadou Lamine mhm. imaam la foofu moom moo ñu yore woon ibtidaa iya mhm. suñu jàngee ba war a wàcc bu desee ay 30 minutes day wax xufaas yi nañ jàng alquran. Mhm. da kenn ku ne jàng cinq minutes 10 minutes da ngay gis yenn saa yi euh, oustaz dafay kontaan ba ronko ñi day tuuru ndeysaan donc yooyu fiiraange boobu ni yenente na la xasada illa fis na tey ni mm-hmm, mm-hmm. boobu daal di may dugg mën daal fa ñu jaar bu mokkal alquran fa mu mokkal ko oh, ba ma ko waxee xam ki ñoo xamme wage ak sax nun kan mm-hmm. ma wax leen ko ñu ne ma yow da ngay da nga da ngaa da nga am problème <laughs> ñun la ñu daj ci daara ji di expliquer di mu ne waa dëgg la loolu seen problème la waaye man incha allah dinaa mokkal alquran yàlla def nag ma tàmbalee kaf fi di jàng ba naas bi ma mokkalee ba naas sonn ci ci loolu nag. waaw dama daan jàng ba nelaw ci kaw kaamil. yeewuwaat comme damay def sport sportif la waaw ma def ay pompe mhm. def ay écart def ay étirement mhm. dox tuuti yooyu mhm. ba yeewuwaat ma ko continuer waat jàng bi noonu laay def mun naa continuer noonu ba fajar bu ma jullee fajar ci laay tëdd su ma tëddee bàyyi neuf heures yooyu ma jóg bu fekkee dama am kii école nag ma jóg dem jàngi su ma wàccee jàng eh, kii daal di tëdd tuuti donc noonu laa def ba mokkal diggante kaf yi banaas li mhm. ma ko mokkalee ba pare may lii daal mënul nekk mu ubbi kaamil bi saar par saar page par aaya bu ne moom man est-ce aaya bi mokkal naa ko mhm. ma tari mu yàlla mhm. mu ne waa doyul xaar ma dem ci ñoom ne leen daan nañ ma xool waaw ñoom ñëpp ku nekk jël kaamil kii bu laajee ma pare kee laaj ma pare ñu ne <laughs> non yow yow doo ñit mooy leen déet <laughs> ñu ne waa léegi nag li des moo gën a yomb mu ne yii dama sonn li ma daj ci lii woom li des moom bàyyi ma bàyyi noonu rek dëgg la xam mi wagg ne mu des dafa yomb ba nga xam ne waaw li nga am moo gën a jafe moo gën a jafe mu ne kaf fi banaas moo gën a mm-hmm. jafe waaw mm-hmm. ah, bi mu waxee loolu ma daal di commencé moo tax diggante ba Bakara ci boobu deux mm-hmm. semaines daanaka weesu ma ko mu mokkal ko ma gën a am courage nag jàng ko même pas six mois ma daal di koy ci tari macha allah lii daal mooy macha allah <laughs> ah, lu am solo la parce que ci biir itam liñ ciy ñu ciy déggee te muy lu am solo mooy xam nga nit ñi dañuy jàpp ne kiy jàng alxuraan mën na koo tardeel mhm. wala day jël ci temps lu baree bari wala bu ci noppee mënta dooni mhm. leneen mhm. te yow yaa ngi wax ne eh, bi ngay jàng léeg-léeg maa ngi dégg sa biir wax lu bari su ma waree dem école su ma waree def nàngam kon li ma ciy dégg mooy da nga koo boole woon ak di jàng leneen mu woon naa la ko di jàng leneen parce que yàlla def na ma jàng yeneen langue lu mel ni anglais lu mel ni français lu mel ni def yenn formation sax ci boobu ci wàllu professionnalisme mel ni comme par exemple euh, commerce international mm-hmm. en même temps tam def naa chinois tamit tuuti mm-hmm. à l'université euh, Cheikh Anta de Dakar bii nii institut Confucius fa laa defee chinois mm-hmm. donc euh, kii yi daal <laughs> yu bari yëngu naa ci daal waaw ci langue ci itam de Sénégal ci ci maanaam ci armation ci armation kën fu wushu waa kën fu wushu waa kën fu wushu moom ngoog moo nga nekk ci champion parce que yaa def naa aar yi bari mais aar bi ma gën a yàgg nga xam ci laa def ay compétition ba jël si ay trophée jël si championnat d' Afrique bu dee Sénégal moom jël naa ci yooni yooni yoon ay ay ay médaille d'or daanaka li ma compétir yëpp Sénégal yàlla day def man maa jël médaille d'or bi donc loolu de yàlla def na ko aussi tamit ñu bokk ci promotion yi gën a marqué seen génération mhm. ci réew mi mhm. ci wàllu kën fu armation mhm. parce que même bi ñuy def sax même euh, passage ceinture noire ci boppam man maa man maa rawoon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon présenté wu Mongo maanaam en tant que première dan chaine tournoi ci Kung Fu mhm. boobu yàgg na ay 2011 yooyu mhm. Mongo donc loolu yàlla baaxee ñu ko mhm. euh, beneen bi moom mooy tamit yàlla def na léegi man maay entraîneur ki euh, national taolu ci équipe nationale Sénégal euh, junior man lañ ko nommé ren est-ce que macha loolu am na solo mm-hmm. Aboubacar xam naa li may faral di wax ku mel ne mm-hmm. yow damaa jàpp ne dañ laa war a wone ci télé yi mm-hmm. du dara waaye ñu won ndaw ñi maanaam ñu ñu motiver leen parce que dafa am loo xam ne bu xasee ba nekk ci nit bu seetloo lépp lu muy góorgóorlu bu cay dem ca jàmbaaree lay bokk yi nga fi wax ni yëpp leen lu nekk da nga ciy am mérite am ci taxawaay bu rëy bala maa ñëw ci li ñuy waxtaan dafa am benn gendeeku bu ma def yaa ngi wax affaire a art martiaux affaire muy affaire sport sport moom nan la ko alxuraan gisee. waaw euh, sport moom alxuraan daf ñoo ci ñoo ci kii encouragé. Mhm. parce que boo demee ci suratul anfal yàlla mi ngi ne wa aiddu lahum mastataatum min quwa mhm. wa min ribatil xayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum donc euh, force boobu yàlla dañu orienté mhm. force yi dafa bari préparer sa yaram préparer sa xel. Mhm. préparer sa yaram ci façon yu bëree bëri bëri. Mhm. waaye tamit euh, bu ñu demee ci sunna moom moo ñuy firil aay bi bu baax. Mhm. yeneen bi salaa sallam muy wax ni nañuy jàngal suñu doom yi. li ñuy wax euh, natation muy féey. ak li ñuy wax fit ci boppam. muy tiir. donc yooyu ci xeetu kii la bokk sport yi nga xam ne yéen saa salaam dafa digle sax nañ ko jàngal suñuy doom. Mhm. kon bu nee nañ ko jàngal suñuy doom ñun ñun taxu ñu muy wax. parce que mhm. mooy li nga jàng ngay mën a jàngale. Mhm. loolu lañ ciy déggee mooy yow da koy jàng ba noppi jàngal ko sax sa njaboot. beneen bi mooy yéen saa salaam dafay wax ci xadis ne al muminul qawiyu xayrun wa ahabu ila allah min al mumini daif wa fi kullin xayr. yéen saa salaam nee na jullit bu am force force physique mentale spirituelle moom moo gën. jullit bi nga xam ne moom dafa faible amul force mentale amul force physique mm-hmm. amul force ci wàll yii nii yëpp mm-hmm. waaye nag ñoom ñaar ñëpp yiw a ngi ci ñoom maanaam baax nañu mm-hmm. waaye bi gën moom mooy bi nga xam ne dafay préparer boppam physiquement mooy ci sport bi moo xam aar bu mu mën a def moo xam sport bu mu mën a def waaye bu taxawee ñu xam ne kii jàmbaar dëgg-dëgg moom moo taxaw kii kii kii kii góor la mais spirituellement tamit ci wàllu jaamu yàlla ci wàllu xel aussi tamit ci xam mooy que ne domaine côté yëpp daf ci war a taxaw loolu moo gënal borom subhaanahu wa taala macha allah nga xam ne kon daal bu ma la déggee alxuraan wala muy diine ji ci mm-hmm. boppam mm-hmm. lu complet la loo xamante ne lu mm-hmm. nit di def ci àdduna rek bu dee lu baax moo ko ci jiitu te won na ko ni ñu ko ko war a defee dëgg la bala maa ñëw ci euh, li ñu war a waxtaane nag muy euh, maanaam daal euh, dimension xam nga alxuraan dafa bari ay dimension lool am na ci yu baree bari yoo xam ne ñun boo xam ne moo gën a siiw fii mooy wàllu jaamu yàlla geeg wàllu yéemu gi ak yu demee noonu léeg-léeg sax ñu dem ci miracle yi léeg-léeg ñu ci yooyu waaye nag aspect scientifique bi léeg-léeg defal ginnaaw lool. yow lool noo koy noo koy jàngate euh, sëñ Mbacke Sylla waaw tey ñi ngi waxtaanee téere boo xamante ni bi. Mhm. damay wax ni mooy Google bi gën a mag. allahu akbar ci univers bi maanaam ci mhm. l'humanité mhm. mooy baydu bi gën a mag. tey xam nga dafa am ñaari moteur de recherche. waaw. bi si njëkk moom mooy bu américain mooy Google. beneen bi moom mooy bu chinois mooy baydu. parce que chinois yi dañu am seen bosu bopp seen moteur de recherche. Ah, bopp bu bokkut ak Google boo gisee sax ñoom ñu am ay problème parce que ñoom dañu am force boo xam mun nañoo demal seen bopp ci côté yëpp. moo tax loolu beneen kii la. Mhm. beneen beneen euh, aspect la mais li ma bëgg a junj mooy hmm. ñaari moteur de recherche yooyu tey da ngay dégg sax kenn boo ko posé question mu ne xaaral ma laaj Cheikh Google. waaw waaw nga xam ne ñun fa la ñuy dellu. fa la ñuy dellu ñu ne loo ko laaj mu jox la la ko. <laughs> léegi nag ñun dañ yàlla di gën bi gën rëy mm-hmm. boo xam ne doomu aadama mosu koo xam te du ko mos a xam muy mm-hmm. alquran google bi gën a rëy baydu bu gën a rëy mm-hmm. mooy alquranul karim yàlla ne maa farratna fi lkitaabi min shay allahu akbar tibyaanan li kulli shay wa tafsila kulli shay donc loolu ñu am ko yàlla jox ñu ko mais malheureusement suñu ñàkk gëstu ak suñu ñàkk yitte tax na ba lu bari amuñu ko ci trésor alquran jooju suñu borom subhanahu wa boo xoolee kalima li ñu wax baatu al ilm mhm. li mu ñëw ci alquran mu ëpp sax baatu ibaadaat yi la mu dikk mhm. am na ñu naan 489 fois la ñëw 29 mhm. fois mooy baatu al ilm yeneen yi mooy mustaqaat yeeg yooyu mooy synonyme yeeg yooyu am na ñu naan ñëw na pour plus de 750 fois mooy yiy junj xam-xam ci boppam li ulil nuha ulil albaab yu mel noonu li xawmi yatafakkaruun li xawmi yaaqiluun ak yu mel ba mu jeex. ñëw na plus de cinq cent cinquante fois. mais baatu ibaadaat boo ko boole ñu ne cent cinquante fois la ñëw ci kon mooy importance bi yàlla jox xam-xam. alquran importance bi mu jox science muy xam-xam moo tax sax cheikh Kiski. rahimahullah da doon wax ne mu ne inna alquran alkarima. qad albasa al ilma taajan fa inna aqalla yaaquutatin fiihi xayrun min ad dunya wa ma fiha mu ne al euh, alquranul karim dafa solal xam-xam ab mbaxane boo xam ne mbaxane wurus la mu ne per bi ci gën a ñàkk solo moo gën àddina ak li ci biir mhm. kon bu ñu demee ci alquranul karim baat bi njëkk ñëw bu njëkk dikk mhm. moom mooy iqra mooy jàngal muy wax ci jàng jàng moom bu ñu ko waxee muy xam-xam te bi mu nee iqra lam ci teg moom mooy bismi rabbika alladi xalaq mhm. mu yóbbuñ ci science directement lii au nom de ton Seigneur qui a créé. qui a mhm. créé l'homme d'une adhérence. Mhm. xalaqal insaana min alaq mais xool xam-xam bi nekk ci domaine boobu tey. nga xam ne ci création wu nit ci boppam. bi mu waxee xam-xam moom la njëkk a joxoñ. moom la njëkk a joxoñ kon bi mu nee jàngal. Mhm. joxoñut euh, ibaada bi. joxoñut euh, euh, maanaam yu baree bari waaye li mu joxoñ mooy science maanaam maanaam science la joxoñ. science la joxoñ ay ci bismillah kon science boobu mu joxoñ noonu. boo xoolee saar wii nii mooy suratul alaq kese kese buñ ci taxawoon tey di ko jàngat. scientifiquement ñu ko jeexal. Mhm. mun nañoo toog mhm. fii ba àddina tukki duñ ko jeexal li ci nekk ci ay trésor li ci mhm. nekk ci ay ay ay ay kéemtaan du jeex moo xam côté mathématique moo xam côté science moo xam côté médecine moo xam côté ñi ñuy wax euh, science euh, li de gestion côté boo xalaat rek maanaam saar bi daf koo peeg ba jeexal tàkk bi si njëkk tey mun nañ jël par exemple baatu iqra boobu suñu borom subhanahu wa mu ne jàngal jàngal moom moo moom moo tàmbali depuis suñu euh, digganteeg maanaam suñu maam aadama mhm. nga xam ne borom subhaanahu wa ba mu sàkkee malaayka yi ba pare ab diir mu sàkk yeneen yi mbindeef ba mu nammee sàkk ki nga xam ne moom mooy suñu maam aadama ba mu waxee malaayka yi malaayka yi am na lu ñu wax mais mhm. yàlla ne am na lu lu mu xam loo xam ne ñoom xamuñu ko am na lu mu xam si doomu aadama te mhm. ñoom xamuñu ko te loolu yëpp secret bi moom mooy xam-xam bi mu def ci doomu aadama wa allama aadama al asmaa kullaha wa allama aadama al asmaa kullaha boobu science xeetu science yooyu hmm. nga xam ne lii mooy technologie lii mooy informatique lii mooy xam-xamu physique lii mooy xam-xamu alquran lii mooy xam-xamu fiqhu lii mooy xam-xamu idaar yooyu soo loolu yëpp suñu borom subhaana taala daal di koy jàngal xamal ko ki suñu maam aadama mm-hmm. te xam-xam yooyu kenn ku ne suñun bi yàlla sàkkee maam aadama ba kii mujjee judd mi ngi sa bopp yàlla dugal na ko sa biir mémoire léegi nag bu si nekk nag jamono bi mu war a feeñ nag si lay feeñ bu si am na yoo xam ne nag effort effort personnel moom moo ko yee mm-hmm. fii ak nit ki góor góorluwul nàccal xel bi sonal ko du ko mën a génne mm-hmm. moo tax ki la gën a góor góorlu ci domaine boobu rek moo lay gën a euh, am résultat te loolu tubaab moomu ko africain moomu ko asiatique moomu ko ñëpp ci yam mhm. ki ki ki ñàkk rek jëriñu mhm. ñun nag malheureusement ñun dañ dul defandikoo suñu mémoire yi duñ ko dul yee donc wa allama aadama al asmaa kullaha boobu moom mhm. moo ñu topp ba tey nga xam ne loolu la ñuy wax code génétique la boo xam ne yàlla daf ko def ci doomu aadama bu nekk ba ilaa yawmi diin kon yàlla ne iqra bismi rabbika alladi xalaqa bu ñu delloo ci ginnaaw saa ñi ngi ko ubbee ci bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim bu ñu demee ci boo xoolee baat euh, aaya bi moom mooy première aaya ci alquranul karim mhm. ndax moo ubbi saar yëpp ba mu des benn saar mooy suratu baraa mhm. mooy surat numéro 9 te loolu tamit am na beneen kéemtaan bi ci ne moom boo xam ne beneen kéemtaan ci ci li tax saar bi amu ko du tax saar bi amu hmm. ko moom goog léegi ak calcul mathématique bi nga xam ne borom subhaanahu wa moom la moom la tënkee téeram bi nga xam ne lépp daf koo calculer wa ahsa kulla shay'in adadan wa kulla cheyin axsaynaahu fi imaamin mubin inna kulla cheyin xalaqnaahu bi qadar laqad anzalna ilaykum kitaaban fihi dikrukum afala taaqiluun boo demee suñu boroom subhaanahu wa taala wa anzalna min as-samaa'i maa'an bi qadarin fa askannaahu fi loolu yëpp ay calcul la yoo xam ne nga xam ne lépp da koo natt tolloole ko yemale ko ba mu nekk moom ngoog yi ay calcul yu exact la yi ay calcul proportionnel la. kon ab Oustaz Aboubacar. Mhm. su ma la déggee maanaam. Mhm. Euh, xam nga ñun ci daara jeeg yooyu bu ñuy wax mhm. dañ ñaan alxuraan saar yëpp a am bismillahi rahmaani rahim. ba mu des sóoratu tawba. ñu ne waaye sóoratu nam li am na ñaar. ñu ne kon boo boolee nangam nangam. ndeketi yéen bi ngeen kon ko nataatee. tey bu doon alxuraan dañ koy dugal ci laboratoire yi. di xool dañuy gis ne bu amoon bismillahi rahmaani rahim. Euh, ni mu yamee ak ni mu keppe du keppe noonu maanaam ñàkk gi mu ci nekk maanaam ñàkk gi mu ci ñàkk ah. nekk <laughs> euh, maanaam loolu tawféex la daal tawféex la bismillah xikma moo ci nekk allahu akbar moom ko kon bismillah rahmaani rahim boo mhm. xoolee dix-neuf lettres la mhm. dix-neuf lettres yooyu nga xool tey jii nii boo xoolee suratul alaq mhm. suratul alaq mooy surat numéro quatre-vingt-seize waaw boo xoolee juróomi aaya ñoo ci njëkk a wàcc juróomi aaya yi bismillah rahmaani rahim iqra bismi rabbika alladi Euh, iqra bismi rabbika alladi xalaq ba allama al insaana lam yaalam boo xoolee dix-neuf mots la dix-neuf boo xoolee tamit euh, suratul euh, al al al al al alaq boobule ak saar bi nga xam ne moom moo mooy xisib bi mujjee ci alquranul karim moom mooy ban suratul al aala al aala boo xoolee dix-neuf lan la waaw dix-neuf dix-neuf la moom ngoog léegi beneen bi moom mooy saar bi mujjee wàcc alquranul karim suratul an nasr la ida jaa nasrullahi wal fat mhm. moom ngoog nasrullahi wal fat mhm. boo xoolee itam boo ko compté dix-neuf mots la saar bi ci boppam ida jaa nasrullahi wal fatu dix-neuf lettres la waaw saar boobu te moom mooy saar bi mujjee wàcc alquranul karim allahu akbar boo demee tamit nga xool par exemple chiffre 19 ba tey saar bi nga xam ne amul bismillahi rahmaani rahim mooy mhm. suratul baraa léegi bu la neexee mun nga jël sa kaamil ñi ñuy déglu nañ jël seen kaamil nga xool euh, suratu taw ba ba suratul al al al namli hmm. suratul namli mooy surat numéro 27 taw ba mooy surat la repentir mooy surat numéro 9 hmm. boo compté tawba ba suratul namli 19 saar la 19 saar la hmm. yàlla ne nag comme bii amul bismillah rahmaani rahim mu ne ni fële nag innahu min suleymaan wa innahu bismillahi rahmaani rahim léegi nag li tax calcul bi foofu mhm. bismillahi rahmaani rahim ñëw ñaari yoon parce que bu fekkoon ñëwul woon kon boobaa 114 saar yi 113 bismillahi rahmaani rahim ngay am mhm. booba nag 114 yi pour nga mën a trouver waat bismillah euh, 19 boobu mooy chiffre 19 boobu mhm. da ngay def plus jox la 2. Hmm. plus 4 mu jox la ñaata 6. 6 léegi nag 6 boobu moom ngay diviser ci 114 suraat yi. boo ko diviser woon léegi 19 la lay joxaat. Hmm, hmm, boo ko xoolee léegi 19 la lay joxaat. 19 waaw léegi boo wàññee benn bisimilah rahmaani rahim boobaa dootoo am 19 bi. yàlla dugal ko fële pour mu am 114 bisimilah rahmaani rahim yi. léegi boo xoolee aussi tamit bu nit nit mun na ne waa 6 bi fan lañ ko jëlee. boo xoolee nu mu turee sax alquranul karim 604 euh, page bi 604 page bi. Mhm. donc chiffre boobu ba tey boo xoolee 604 6 plus 0 ñaata la lay jox 6 plus 0. 6 la plus 4 mu jox la mu jox la 10. Mhm. waaw donc 10 boobu noonu moom mooy chiffre 19 boobu moom la ñuy wax 1 plus 9 est égal ñaata etegal égal 10 10 est égal plus 0 mu jox la 1. donc lépp ci yàlla la jóge ci moom lay dellu. nga xam ne lépp ci 1 lay dellu. lépp ci 1 lay dellu muy muy ahad <laughs> qul huwa allahu ahad te ixlaas boobu tamit kéemtaan yi si nekk boo boo ko boo boo ko doon xool boo xoolee ixlaas hmm. lam yalid walam yulad hmm. yàlla nee jurul kenn te kenn juru ko. waaw boo xoolee saar woowu bu duggee ci chiffre sept mooy suratul fatiha. nga xam ne raqmu saba wàllu mathématique ba tey. Mhm. moom ay kéemtaan yéeme ngi ci biir. léegi bu ñu ci chiffre dix neuf. moom goog bu dama ko tënk sax. mais gën naa yaatu loolu. li nga ci jot a tënk mooy bu ma koy doon tënkalaat auditeurs li ma ci mhm. comprendre. Mhm. ndax ndax fi mu ne damaa soppali mbir mi mu nekk ab classe. léegi dañuy jàng xëy na mooy 19 kon boo waxee bismillahi rahmaani bu buñ ko compté day nekk 19 mhm. araf iqra bismi rabbika allasi xalaq mhm. day daal di nekk moom itam 19 bu ñu demee ci taw ba nekk 19e saar waaw te saar woowu moo amul bisimilah rahmaan rahim te bisimilah rahmaan mooy 19 euh, baat yi nga waxoon léegi. ma macha allah isaa jaa nasrullahi bi mujjee wàcc. Mhm. nekk moom itam 19 baat. 19 baat sukran sukran première aay bi nekk 19 lettres. Mhm. waaw bisimilah rahmaan rahim nekk 19 lettres. macha allah ma ngoog macha allah dernière hijib ci alquranul karim tamit. mi ngi tàmbale ci suratul aala te hmm. saar bi 19 aaya la allahu akbar mu ngoog allah léegi nag yaa ngi woon ci chiffre set léegi moom itam donte bii dañ ko tënk mu ngoog waaye ah, waaye alfaatiha eh, damay dégg ñu ne faatiha mooy mooy umul kitab faatiha mën na ñàkk ci julli faatiha moo tënk alquran nga xam ne dañuy wax ne maanaam faatiha daal ñu ci wax ci ay ngëneel yëpp day mel ne moom ci boppam mooy alquran lu tax loolu waaw li ko waral mooy boo xoolee faatiha moom mooy introduction wu alquranul karim mooy muqaddimatul quran Euh, alquran yàlla dafa daf ko daf ko daf ko tënkee façon bu yéeme bu extraordinaire mm-hmm. boo xoolee képp kuy bind livre sax méthode alquran ngay jël rek style alquran ngay jël da ngay am dével euh, introduction mm-hmm. am développement am conclusion mm-hmm. boo xoolee fatiha moom mooy introduction wu alquranul karim baqara ali imran nisa maïd ak yooyu ñoom ñooy développement yi yooyu hard la waaye nag conclusion bi moom mooy saar yi gàtt yi suratu naas falaqi ixlaas ak yooyu mooy saar yi nga xam ne ñoom ñooy conclure alquran ñoom ñooy tëj discours bi boo xoolee noonu la noonu la ko borom subhanahu wa taala tënkee donc fatiha lépp looy wër ci biir alquran ko dañ koy fekk ci biir fatiha mm-hmm. loolu benn mm-hmm. deuxièmement fatiha ñi ngi ko doon wax sànq mi saar bu yéeme yàlla mm-hmm. tuddee ko al fatiha mooy l'ouverture kalima boobu rek boo xoolee. waaw alfaatiha alfaatiha. Mm-hmm. mooy li ubbi lépp. mooy caabi. caabi. Mm-hmm. laa mm-hmm. la nga xam ne lépp la ubbi amul lu mu ubbiwul. compte yépp nag. waaw léegi nag euh, ñu ngi doon wax raq mu saboo bi kon bu ñu ci ñëwee. alfaatiha boo ko compté sept lettres la. alfaatiha sept lettres la ma saar bi ci boppam ñaata aaya la. Mm, sept aaya la saar bi. Euh, xuruuf yi nga xam ne euh, xuruuf yi si ñëwul mm-hmm. juróom-ñaar lañu yoo xam ne ñëwuñ ci ñëwuñ ci mm-hmm. juróom-ñaar lañ mm-hmm. léegi yi si ñëw tamit boo ko diviser da lay joxaat 49 49 tamit multiplication 7 la encore waaw ah. beneen bi ci gën a yéeme encore moom mooy boo xoolee suratul fatiha gannaaw boobu baqara moo si tegu raqmu bi yàlla njëkk utiliser tudd ci alquran raqmu sabaa la mhm. fa sawwaahunna sabaa samaawaat sabaa samaawaat wa huwa bi kulli shay'in alim raqmu bi yàlla mujjee tudd ci alquran raqmu sabaa la moom ngoog wa banaynaa fawqakum sabaan shidaada mhm. gannaaw boobu amatul beneen raqmu boo xam ne ñëw na ba minal jinnati wan naas donc mu sabaa bi gis nga ni mu yéemee ci mm-hmm. alquraanul mm-hmm. karim mm-hmm. donc mu sabaa boobu boo xoolee ci lépp moo xam yàlla ni mu ñu bindee ci création bi waaw sab mooy mooy mooy juróom-ñaar mooy mooy chiffre sept moo xam ci univers bi asamaan juróom waaw moo xam tabaqaat yi moo xam suuf si moo xam même électron si boppam sax sept nouveau la suuf si tamit sept nouveau la mu ngi noonu lumière bi nga xam ne moom mooy l' la plus forte bi doomu aadama xam lumière boo xam ne sept couleurs moom moo ko moom moo ko moom moo ko hmm, composé waaw lumière pour nga gis ko ni waaw ci la hmm. ci la génne ci la lépp lu image euh, donc ci la mën a génne yàlla ci sept la ko la ko la ko la ko kii la ko la ko la ko tënk nga xam dañuy wax ñaar ñaari ñaari euh, kii la élément ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko kii composé mm-hmm. li ñuy wax euh, li ñuy wax ni ñu ko maanaam ay onde ak ay grain mm-hmm. lumière mais sept couleur moom moo daje pour nga mën a gis lumière mais soo ko xoolee ñu étudier ko sept couleurs la voilà li weex ngay gis ni mais hmm. sept couleurs moo composé comme ni nga ko waxee lii yëpp ñuy gis lépp tout ce visuel hmm. moom moo koy joxe même bët ci boppam noonu la tamit moom parce que dafa am lumière bu nekk ci bët bi ci bi yàlla def ci biir bët hmm. te lumière boobu noonu dafay am nu mu joxanteeg lumière bi nekk ci biti ex euh, maanaam extérieur bi ñoom ñaar ñu équilibré ñu tolloo nga mën a gis normal bi nekk ci biir warul warul inférieur warul ëpp tamit. Mhm. bi nekk ci biir tam warul ëpp warul wàññeeku. encore mhm. looloo tax nga mën a gis normal yenn saa ñu ne wàññil lumière bi wàññi sa kii parce que bu ëppee rek. Mhm. day day am conséquence yi mu indi ci bët bi. donc loolu euh, benn. beneen bi moom mooy comme chiffre set bi ni ñu ko waxee rax mu sabaa bi. suñuy wàllu ibaadaat yëpp boo xoolee moom moo ko composé. xoolal aji màkk tey. tey ñun bu ñuy julli. waaw fan la ñuy jàkkaarloo. kaaba ja kaaba gi waaw. penku bi ñuy jàkkaarloo. aussi tamit. la ñuy ak penku bi. Mhm. asalaatu nuurun loolu la yéen sala salaam wax dëgg la julli lumière la wax nañ lumière sept couleur la mhm. beneen moom mooy kaaba boobu ñuy jàkkaarloo mhm. moom moo ñuy jokkale ak li nga xam ne moom mooy asamaan dëgg la allahu boo tax bu ñu jullee te jàkkaaruñu ak kaaba waaw du ñu am foofu la centre bi yéegal affaire yi nekk nekk te alxibla bi yàlla <laughs> tudd ci alquran sept fois la ñoo ci alquran xibla waaw sept fois la ñoo ci alquran amul amul beneen dëgg ah, fois la ñëw. est que beneen bi moom mooy. lépp lu ñëw Kaaba ja. Hmm. sept fois la koy wër. Hmm. Ah, waaw tawaaf bi waaw tawaaf sept fois la ñu tawaaf Safa Marwa. sept fois sept fois la. Hmm. jamaraat yi. fois ñett yi. mu nekk sept boo ko boolee mu nekk vingt et un. vingt et divisé par sept euh, par trois mu jox la encore sept. mi ngi noonu. donc noonu la Kaaba bi nga xam ne moom moo tiim. Euh, kaaba bi ne ci àddina bi. mooy bi ñu xam ñun mooy. albaytul maamuur boo xoolee yenn saa sam lan la wax mu ne. soixante di malaayka ñoo koy wër mhm. bés bu nekk waaw soixante-dix mille malaayka mhm. ñoo koy wër te bu ñu demee du ñu dellu si waat kon rax mu sabaab ñëw na bu ñu delloo yaa ngi naan suratul fatiha ñi ne secret la suratul fatiha képp koy jàng doo dugg safara ëllëg mm, mm, alhamdulilah doo dugg safara ëllëg moo tax jullit jullit la ñu wax ne jullit dëgg du dugg safara ëllëg mm, du gis mbugalu safara ëllëg li ko waral moom mooy fatiha juróom-ñaari aaya la mm-hmm. moom aaya bu mu jàng rek da koy tëjal benn. benn buntu ci buntu safara yi buntu safara juróom-ñaari buntu la. laha sabaatu abwaabin mhm. li kulli baabin minhum juzun minha juzun maqsum beneen bi moom mooy zabaan yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoom la yàlla dénk gestion wu safara. Mhm. lan la yàlla wax sa nadu zabaniya zabaniya mhm. yooyu mooy sànq li mu doon wax ci surat al alaq ne duñ ko jàngati ne dafa bari ñoom tam yàlla lan la wax fële ci mu suratul mudassir alayha tisata achar bismillahi rahmaani rahim bi ngay jàng saa yoo ko jàngee xaraf bu ne dina taxaw sa digganteeg benn ci malaayka yooyu. Mm-hmm. ba duñu am ci yow accès. moo tax du jullit du dugg safara. Mm-hmm. kon loolu yëpp ci fatiha macha allah euh, mu nekk ay mbir yoo xam ne yu yéeme la donc raqmu sabaa buñ ko toppee ci alquran effectivement duñ ko jeexal mhm. mais buñ ñëwee ci sunna yeneen bi da koo employé ci façon yu bëree bëri mhm. mhm. ijtani bu sabal mubiqaat sabaatun yuzilluhum allahu yowma laa dilla illa zillu man zolama qiida shibrin min al ardi tawaqahu min sabi aradin alhamdulilahi rabbil alamin hiya sabul mathani wal quran al adim alladi utituhu umirtu an asjuda ala sabati azumin ba ci alxuraan bi ñuy jàng ay juróom-ñaar juróom-ñaar digal naa leen juróom-ñaar nangam digal naa juróom-ñaar oh. set yi noonu lay répété ba ci alxuraan bi yeneen saasam nee na ci juróom-ñaari xaraf laraf xaraf mm-hmm. ci laa ko wàcce unzila ala sabaat ahrufin moom nga kon set bi am na lu ci nekk loo xamante ne borom subhaanahu wa taala moom rek moom moo ko xam muy lu am solo Cheikh mhm. Aboubacar mhm. Traoré lañ dalal di waxtaan mhm. ak moom ci eh, alxuraanul karim waaye ci beneen façon boo xamante ne tey eh, bu borom bi waxee ne téere bi fàttewuma ci dara wax ne téere bi mooy leeral lépp wax ne téere bi moo teqale lépp eh, damay damay wax ne ñun ñun suñu digganteeg téere bi xam naa war na jar naa seetaat parce que li ngay wax nii dafa mel ne téere bi kon bu ñëwoon ci wàllu santé mhm. ci wàllu médecine mhm. réglé na ci lu bari bu ñu jëwee ci wàllu mhm. économie mu réglé ci lu bari ndax àdduna lépp a ngi dox ci chiffres yi ngay wax nii kat ak fànn googu loolu loolu loolu ban gendeeku nga ciy def très bien tey euh, lépp maanaam formation bu doomu aadama def ci kaw suuf mi ngi jeexee ci mathématique ci calcul waaw waaw loolu moom euh, ñiy def euh, nu mu tuddee sax formation professionnel waaw ñoom xam nañ ci dara bu baax da ngay jàng marketing ci ay calcul ngay mujjee ngay jàng économie ci ay calcul ngay mujje ngay mm-hmm. jàng informatique da lay delloo ci lépp calcul la mm-hmm. comme ni ko borom subhaanahu wa taala waxee mm-hmm. wa ahsa kulla shay'in adadan yaa wax affaire économie tey jullit yi xool ñu tardé économiquement boo xoolee ñun jullit yi ñun ñoo gën a riche ci àddina bi waaye en même temps ñoo gën a pauvre ci àddina bi xam-xam bi nga xam ne moo war a tax àddina bi am équilibre économiquement nga xam ne du nekk duulatan man alal bi du nekk duula baynal agniya mu demee wet demee boor mu boo xoolee Euh, économie àddina bi daanaka 10 pour cent maximum wala 20 pour cent. ñoom ñoo koy séddoo. ñoom ñoo ko yore. ñoo yore koom ñoo yore mm-hmm. lépp. Mm-hmm. ñi si des yëpp dañu dool nekk ci ay jafe-jafe. donc partage boobu nga xam ne wala euh, kii boobu. Euh, mm-hmm. système boobu. moom la alquran doon dàkk te yaa ngi wax économie tey bu ñu demee ci alquranul karim aay bi gën a gudd ci alquran problème économie lay réglé mooy aayatu dayn yaa ayyuha alladina amanu mhm. ida tadaayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubu est-ce que boobu ma nga page la waaw ma nga wax ca bor yee ca det yaag yooyu yooyu système bancaire noonu lay <laughs> doxee li ñuy wax li ñuy wax TOB wala top waaw technique opération bancaire aaya bi loolu lay wax te àdduna fi mu ne mi ngi toll ci loolu ñëpp di waxtaane loolu ñëpp di waxtaane mhm. nga xam ne mhm. mënuñu génn cadre boobu mhm. euh, dañ mos a ndeysaan nekk ci benn cours benn prof prof monsieur Ndoye la mu ñuy jàngal euh, kii euh, opération bancaire yi quoi mode de paiement yeeg yooyu ba mu koy kii mu ñuy wax ni ñuy kiiwee dette yeeg yooyu ak ak ak signature yeeg contrat yi ni ñu koy def ba mu ko waxee ba pare ma ne ko pourtant am na aaya boo xam ci alquran lii lay wax mhm. mu ne non alquran ak jamono bi mu wàccee non nangam ma ne ko si ma génne tradition alquran bi maanaam euh, saar bi ci sama téléphone ma won ko mhm. mais jour boobu eggaliwul cours allahu fa la yem wallaay mbir bi da ko dépassé da ko jaaxal maanaam lépp mi ngi ci suñ loxo borom bi mhm. bind àdduna jox ñu ko waaye yëguñ ni ñoo ko yor yëguñ ni ñoo ko yor loolu yëpp ñaak parce que benn wet benn bot bët lañ koy xoole alquran bi nañ ci xàmmee ni ñuy jullee nu ñuy wooree jeex na mm-hmm. waaw bu nit génnee àddina ñu wàcceel ko kaamil bu réew bi nekkee ci difficulté nañu mm-hmm. wàccee nangami kaamil mm-hmm. côté boobu lañ ko gën a xoolee que beneen côté bi ba élég ñu xoolee ko ne quraan bii nii yàlla nee na laqad anzalna ilaykum kitaaban fiihi dikrukum bi maanaam fiihi izzukum wa sharafukum wa nahdatukum wa taqaddumukum wa tharwatukum yépp ci al alquran bi la nekk maanaam seen teraanga ci la nekk ci la seen kaaraange nekk ci la seen personnalité nekk ci la seen yokkute nekk seen nekk yokkute seen développement waaw lépp seen renaissance moom goog seen émergence yëpp mu ne ci alquran bi la mais naka la nag hmm. ñun ñoo koy gisu nekk ci di ci gëstu di ci di ci góorgóorlu di ci def ay méditation parce que loolu la ñu sant mhm. afalaa yatadabbaruna alquran mhm. am ala qulubin aqfaluha kon lii ngay wax ni mooy mhm. euh, li nga wax léegi aaya mooy setantal alquran li wax ni kon mooy settantal dëgg dëgg settantal gi dëgg dëgg-dëgg loolu la xu maanaam ñi ñu jiitu loolu la ñu amoon ci alquran moo tax science yi ñuy àddina di bàkkoo ci bopp moo tax euh, cosaan bi ci lislaam la ci ulamaawul islaam la. dëgg la boo xoolee xam-xamu science ci julliti la juddoo. Mm-hmm. mathématique ci julliti la juddoo. ci mm-hmm. Égypte bii nii. Mm-hmm. moom te ñun dañoo dem ba dañoo jàpp ne yi ñoom léegi àdduna dañuy ay al toppe la ñuy bëgg a doon. <laughs> te lépp ñoo ko yor ba noppi di di ñoo ko yor. allahu akbar dafa kaaw corona bi mu amee. waaw mbokk yi dëkk fi non dañu war a raxasu dañu war a kii mën a yéen. <laughs> vraiment billaay tubaab bi dañ leen di fooyee. billaay ñun bunt bu njëkk ci fiqu li nga jàng lan la mooy mooy laab set waaw raxasu sangu <laughs> loolu da la ñuy njëkk jàngal nit ki buy jàng diine muy jàng diine est-ce que jàng jàpp bi rek xoolal rek guddeeg bëccët yaa ngi jàpp ñu naan la ngay raxas sa loxo nangami fois yaa ngi jàpp mais nag chiffre 19 bi nga doon wax léegi hmm. sama sama sama jigéen bi soxna Daaro dafa maa fàttali ne ma hmm, hmm, euh, maanaam ci feebar bi ñu nekk nii mooy covid 19 bi moom itam 19 da caa laxasu de 19 <laughs> boobu foo koy dugal wala day doon 19 rek <laughs> avec mbir bu yéemee la. ah boo boo xoolee même euh, kii li ñuy wax sax euh, xam-xam dëgg-dëgg. mu mhm. ngi feeña ci euh, siècle dix-neuf bi. waaw mu hmm. ci la ci la xam-xam yi bari. feeñ ci dix-neuvième siècle yàlla daal dix-neuvième siècle. waaw mu mbir mbir daal mi ngi ci daal. Mhm. waaw hmm. Covid 19 mbir daa ngi ci nekk. est-ce que te mbiru kéemtaan yëpp boo xoolee suñu borom subhaanahu wa ci chiffre impair yi la koy dugal. Mhm. même lay laylatul qadri boo xoolee. yeneen saa sax ne nañ ko wër ci chiffre impair la yàlla tamit ci mboppam dafa tóol. dëgg la allahu akbar euh, oustaz Aboubacar li ngay wax nii ci mhm. chiffres yi mhm. man léeg euh, ñun dafa am nu ñu xaw a comprendre mhm. ay chiffres rawatina ci téere beeg daara ji mooy bu ñee dañuy déchiffrer dara di wax naan euh, un mooy alif mooy un ba mooy deux nangam day fekk <laughs> dama ne waa noo tudd mu ne ma man de seex eh, laa tudd wala mm. Moustapha mm. man daal di jël sama bic miim nangam soit eh. nangam toi nangam <laughs> pare eh, nga xamante ne lu ma koy bindal mu takk la mm. wala yu may xooli la wala <laughs> dara ndekete mbir mi itam maanaam loolu bokk na ci waaye mën naa weesu loolu di dem mën naa weesu loolu da ko taxut a jóg laa bëgg a wax waaw taxu koo jóg mm-hmm. comme dafa am benn boroom xam-xam bu mag bu ñuy wax mu Mouhamad Qutb mm-hmm. gaañu na léegi Euh, frère Sayyid Qutb la ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay Sayyid Qutb mooy saaxibul zilaal ci bind fii zilaalil quraan mm-hmm, mm-hmm. da doon wax ne mu ne fal quraanul karimu euh, laysa kitaabu nazariya mm-hmm. wala nafsiya wala ilmiya wala fikriya walakinahu kitaabu tarbiya wa tawjih wa fi sabili hada tawjih yakshifu lil insaani an baadi asraari nafsi wa asraari alkawni min xawli summa yadcuuhu li yataamala wa min thamma yattajihu al ittijaaha alsaxiix wax boobu bi ma ko jàngee ci laa orienté wu ci lu bari. ci xam-xam yi bari yi ni da ngay dégg ñu ne xam-xam nangam baaxul parce que bu xaaba yi ñoom ñoo koy. Mhm. jëfandikoo xam-xam nangam baaxul. parce que dafa am mhm. lii ñu ngi ciy def ci yu bon ak nangam ah. nangam. Ah, la ko demee woon noonu. léegi pour tënk li Mouhamad Qutb wax rahimahullah mu ne alquraanul karim nekkul téere joo xam ne téere théorie la. Mhm. wala science wala philosophie wala psychologie. mu ne déedéet. mu ne téere tarbiya la dalika alkitaabu laa ba fii hudan lil muttaqin mhm. inna hada al qurana yahdi lillati hiya aqwa dafa ñëw pour yar doomu aadama orienté ko nangu ko lépp lu dul yàlla jox ko yàlla mhm. loolu mooy objectif maanaam moom mooy objectif bu alquranul karim mhm. mu ne waaye ci yoon bi muy jël doomu aadama di ko defar ngir jox ko borom subhanahu wa ci la koy muuril mboole mu secret yi nekk ci jëmmi boppam moom secret yi nekk ci jëmmi boppam ni ko yàlla bindee yàlla ne wa fi anfusikum afalaa tubsiruun waaye tamit mboolem secret yi nga xam ne kéemtaan yi nekk ci li ko wër ci univers bi ci nature bi mu ne waaye loolu muy gëstu noonu daf koy gëstu pour mu xam mhm. waaye xam boo xam ne da koy yóbbu ci boroom maanaam du mhm. yem ci li yàlla bind mais da koy pousser mu dépasser li nga xam ne moom la yàlla bind yóbbu ko ci ki nga xam ne moom mooy ci bind muy yàlla subhaanahu wa taala mooy benn bés li benn waay doon xam ne mu ne yéen yéen a tardé yéen yi yéen yéen a ngi gëstu ay fiqu ay nàngam boo leen dem ci tubaab yi tubaab yi ñu ngi yóbbu nit ñi ci planètes yeeg ci weer beeg yooyu waa ji ne ko tubaab yee tardé parce que ñoom dañoo yem ci weer jeeg jant ji ñun nag ki bind weer jeeg jant ji fa lañ lay yóbbu moom go macha allah lu am solo nga wax xam naa ne yow moom bii day teg loxo bu njëkk mm-hmm. waaye lii xaaj bu njëkk waxtaan la ndax li ñu war a waxtaane lu baree bari la donte sa yitte mm-hmm. mayu la yu baree bari waaye danañ ko bokk ak yow ndax eh, damay faral di wax ne dafa ñu moom plateau yi mm-hmm. te ba nëga ni nag dese nañ leen a jox plateau yow mi ak ñi mel ne yow ci nga bokk ñi nga xamante ne bu ñëwee danañ wax nit ñi loo xam ne day delloowaat jullit personnalité parce que euh, ñu wax ñuy jooy rek baax na waaye luy tax ñu yëgaat suñu personnalité bi am ba yëg ne li ñu yor mooy àdduna ak li ci biiram loolu dara ëpp ko seen Abu Bakar euh, xam naa nag euh, damay bëgg nga jàngal ma alxuraan parce que loolu itam sa domaine la te itam auditeurs yi dinañ ci bëgg ñu defaruwaat bu ko defee nga tooyal xol yi ci a karim lu jiitu ñuy waaji yëkkati jotaay bi bismillah yaaram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 <laughs> ngir mu gën ñoo jege rek ñu tàggatoo ko. damaa xaw <laughs> damaa xaw a lee de. waaw daa am benn problème. <laughs> macha allah. Mhm. am na beneen aaya sax bu ma bëggoon. waaw ban la ñu waxtaan ci. waaw aaya bu gàtt la. waaw ayca dañ koy introduire man lañ koy introduire man nga ko wax mu nekk introduire prochain invité. waaw incha allah aaya jan la aaya ban la. mooy idhab. Mhm. anta wa axuuka. Mhm. bi aayaati wala taniya fi dikri. aaya boobu dafa mm. yéeme. li ñuy wax ilmul idaara. moom la tënk waaw surtout taaha dafa tënk ilmul idaara. xam naa beneen yoone mun nañ ci ñëw. lan mooy lan mooy ilmul idaara. mooy science de la gestion. Mm-hmm. tey àddina bi ko wax mi ne ni gestion gestion. Mm-hmm. banques yi gestion la ñuy wax entreprise yi gestion sociétés yi gestion. Mm-hmm. même euh, gouvernement yi état yi gestion rek ngay dégg. waa administration lépp moom la. donc aay bii nag daa ñëw ngir lijjanti man du ma ci gis loolu bu ma ko tiimee nii di xool uh-huh. damay gis ne rek uh-huh. euh, Moussa la yàlla yebal ak uh-huh. euh, frère am euh, ca Firawna ne ko dem leen bi aayaat yi ànd ak samay kiimaan wala taatiyanaa fi zikri idhab idhaba ila Firawna innahu taxa Firawna dafa bew dafa réew loolu nga ci génnee da nga fi ñëw génnee ko de waaw incha <laughs> allah am benn problème dinaa ñëw génnee ko ba ñëpp kontaan incha allah jërëjëf <laughs> waxtu bi moom moo ñu xaw a xooj waaye bu waxtu bi buñ ko mayoon rek dinañ ci ñëw nga xam ne même wàllu économie sax dafa am benn rukn boo xam ne euh, pilier boo xam ci l'islam mhm. problème économie lay régler moom mooy mhm. problème zakat te zakat tey moom la tubaab bi traduire taxe ak li ñuy wax TVA ak yooyu impôt yooyu mhm. zakat bu ñu changé la rek système zakat la rek parce que ci li ngay liggéey li nga am ci ngay génnee am benn contribution booy def jërëjëf macha allah bëgg nañ lool ci yow sagalati nga ñu waaw wax dëgg yàlla ñun ñi bokk ak yow daara ji sagu nañ lool wax di wax xam ne mhm. ñeme naa laa yóbbu fépp fu ñu mhm. tànt ci àdduna nga jàng fa alxuraan ñeme nañ la yóbbu nga waxtaane alxuraan mhm. te moo ne waxoo damaa yelwaani ba sonn ah. wala dañ maa jéng wala dañ ma doon dóor <laughs> waaye li ngay wax mooy man maa doon ah. jàngal sama bopp Aboubacar loolu loolu mérite la yàlla na nga ko muurloo xam naa ci taw féexi borom bi la subhaanahu wa waaye sedd na suñu xol lool jërëjëf yàlla na yàlla fay la xam naa kon ñi bëgg a jokkoo ak yow dañ lay woo <laughs> 15. 98 15. waaw 555 98 15. waaw moom ngoog macha allah di nuyu sama soppe bi nga la juriste moom ngoog moom moom sama assistance kii rek moom mooy mooy ànd yu bëree bëri bëri. waaw bi ma sa soppe la. walaay mi ma nettali émission yi jàll ni ñu koy defee ak ñu tudd tur yi defe naa xaritu boroo la sax. <laughs> waaw <laughs> jërëjëf monsieur ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. jërëjëf Cheikh kon sa numéro mi ngi noonu na ci nañ jokkoo ak yow eh, ñi nga xam ne ñoo eh, mm-hmm. mm-hmm. la fi des nag numéro ma ngi noonu ndax moom bu ma rëccee du ma ko gaaw a gis <laughs> te bu ngeen ma yóbbante yóbbante bi mën naa koo ndogoo eh, loolu wóorut moo tax nañ nañ jokkoo yow directement rek ah aywa sant naa gërëm naa bu baax a la sant nañ la ñu nit gërëm lañ la jazakumullahu xayran salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Aboubacar imaam Aboubacar Traoré lañ dalaloon tey doon waxtaan ak moom ci téere bi ñun bëgg nañ lool ci moom yéen ñi doon déglu yi defe nañ ne bëgg ngeen ci yéen ci moom te loolooy jubluwaayu Sud FM seen rajo ñu jaajëfal leen bu baax a baax bëgg ci ñi nga xam ne ñoo ñu doon topp ci biir réew mi ñi nga xam ne ñoo ñu doon topp bitim réew sant leen gërëm leen bu baax a baax jaajëfalaat leen bu baax a baax ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu sàmm te boole ñu ñu tawféex ñu suñu koor ñaan ko mu nangul leen seen koor yéen itam defal leen jàmme àdduna ak suturas alaxira ñu daal di xoolaat suñu diggante ak alxuraanul karim bi daal war nañoo xool nan lañu def ak moom ndax ñun dañ ko jënd rek teg ko ci saal bi méebu la ko fenn wala dañ koo def téere barkeelu wala léeg-léeg dañ naan ndeysaan kii de alxuraanam ji neex na wala dañoo bokk ci ñi nga xam ne dañ koo fas yéenee dund bokk ci ñi koy jàng lay moom amut wala xad yassarna alqurana li zikri fa hal mu mudakkir loolu la borom téere bi wax muy subhanahu wa taala téere bi jàppandil naa ko yombal naa ko ku bëgg a mokkal boo defee effort mokkal preuve ngi ni tey sama invité tey bii ma dalal mokkal na alquranul karim te jot a dem ci daara waaye moo toog kim nekk di ko jàngal boppam ni mu ko waxee at genn wàll mu mokkal téere bi yal na ko muurloo waaye li mu fi waxtaane ci biir xam-xamu alquran rek loolu doy na sëkk ab xam-xam nit mën na téere bi di ko jàng waaye e, dem xereñi ko ji ko def tëddabur bi nga xam ne moo ci am ba baat bu ne buñ ko waxee nga mën koo wax man koo xereñi man koo taxawee loolu beneen xam-xam la beneen bi ci topp yëmut ci mane noonu alxuraan waaye bu jàngoon benn aaya tey nga wax ko aaya bi sax ci xët bi mu nekk wala fa mu toll ci xët wa wala nam fa placé woo ci xët wa mu génneel la ko loolu yeneen xam-xam la yoo xam ne am na ko waa daara ji ñoo am ñu mel ne Cheikh Aboubacar mii nañ leen génnee nañ leen gën a wone nañ leen gën a jàppale te xam ne ndamul daara ji la doonul loo xam ne nit lañ ko defal waaye alquranul karim lañ ko defal yal na yàlla barkeelal ko te barkeelal nu mbokk yi cant ngërëm ñeel na leen kanam tuuti ñu bàyyi leen ak waa rédaction bi ñu ànd ak yéen ci xibaar yi buñ ci noppee ànd ak yéen ci wax ba noppi ci danaa fi ànd ak oustaz Alioune suñ jotaay boobu boobu di yasalunaka fi diini wal xayaa buñ ca noppee ànd ak yéen nag ci eh, nidaa wala bokk eh, riyaadu saalihin lay ñëw bu noppee ñu ànd ak moom ci yasalunaka sant ngërëm ñeen leen salaamaaleykum nan fonku leenu am ku ne génnee la mu xam te mu def ci sunu jom day tax nu maanoo dem lu ko moy nu dox ci lëndëm